sur le général Moussa Fall lan kuy tëru. kuy teggee ko man. foofu laa bokkoon wax ak dégg. mais moi je crois que c' est. Fassam bëri na hmm. wax ak dégg. wax ah. que réew mi dañu am problème eh, dégg-dégg. please ñu déglu Aliou. eh moo dagg ñëpp déglul woon kenn. ah non dañ koy ah, nañ ko déglu. mu def noonu demal na ko ñëpp déglu bu kenn wax. doo si doo <laughs> so sa morom. dëgg la morom xaw ma comment ça se dit comme ça non je sais pas. lenn ci morom dama ne en ëpp en ëpp dem leen ngeen toog. yaay wax loolu ah. Aliou ñëwal ci Moussa balaa maa dem. yow moom il faut nga def appel à nag âge bi da ci am solo. bomb bomb. il faut ñu définir lan mooy am immaturité. waaw ah, léegi comme yéen seen temps bi da ngeen koy fowee du ngeen ko dimbali rek. kilifa li lu bëri lu bëri lii. damay bàyyi ba ñu man war mais <laughs> général Moussa Fall. soo bëggul wax si général Moussa Fall. nga delloo ma nga ma sama kàddu. dimbali ma doxal bu may jeexal nga tëjee nga tëjee ni. ko def ci digg bi mu mel ni un cheveu moo dama la koy ñaan. ma def bañu ma de bañu ma mais dafa mais def quand même un sujet important. déedéet non non xaarul Aliou pare booy tëj. nga def loolu alaaji bul def noonu boo mun wax loo xam ne ñeneen ñi dañ ciy bëgg a ñëw nga yàq suñu thème. du ci ñëw man maa ci ñëw. Ah. man dama ci ñëw. ak la si jàppale. allez doxalal non je crois que ci gàttal je pense que wax ngeen fi am solo booy bi nga xam ne man d'accord moom moom lu bari li mu wax li mu mujjee wax. grand waaw li ma wax booy tu m'infantilises quoi je grand monsieur. non nga am nga xam loolu. petit sakku yaya kii est-ce que dégg nga ko suuf muy wax fi booy Diomaye ba ma mais man man il faut pas m'infantiliser. kilifa laa grand non non kii la mais lay wax. ah mais booyam la non ci bi amul ay booy grand. non ba xam nga def. waaw match booy ak grand. <laughs> bu paree rek du ma nañ eh. nañ dem terrain nga def El mu def Macron barki démb. <laughs> Macron di xalu di pàdd ñàkk kii. <laughs> bu yàlla woon Jomaay. Sonko ak a taar. non mooy euh, abord il faut qu'on reconnaisse une chose mooy euh, euh, Moussa Fall. général Moussa nit boo xam ne la wax dëgg yàlla moi je ne le connais pas. musuma ko gis budul ci télé bi musuma ko jox loxo mm-hmm. mais euh, journaliste la am na ay nit ci réew mi damay waxtaan ak ay nit ñu bari façon nit bu nekk mm-hmm. te wax dëgg yàlla euh, réputation bi mu am ci mm-hmm. nit bu jub nit bu intègre nit bu jullite wax dëgg yàlla loolu ñu bari li may wax ni xam nañ ko en tant que personne bu wet ci wàllum liggéeyam euh, nit bu ku xam liggéeyam la ku ku ku rampe ci ci ci liggéeyam ku maîtriser son travail lu bari nag yàq nañ ko ci yàq nañ ko ci yàq nañ amul ah non amul c'est pas vrai hmm. wax gi moo bari rek lii lañ doon yàq Biram jóob général Biram Diop hmm. fan lañu ñu mujjee def ko ministre des forces armées amul luñ ko yàqul kaka nga yàq ah laajteel Guy Marius Sagna ah, ak waa waa Pastef fii ah lu nekk yàq na ah si ñu ci bari ci dañ dañu waxoon dëgg rek man xam nga. dugg moon sax ci détails yi c'est pas important mais pour wax la rek ni des fois politique moo doy waar ba nga xam ne nit ñi dañu leen yàq lu nekk Pape Alé Niang mi nee fi kii na ko du ma wax la ñuy wax Pape Alé lu mu ko yàqul Pape Alé yàgg na ko sàcc si xaw ma jënd benn kër 6 milliards mais lépp ci politique la woon loolu mu doon wax du dëkk ah, Pape Alé li mu doon wax am fu mu ko teg mais du mais ce n'est pas ah, vrai nangul man je confirme non boobu moom je confirme Aliou li mu wax. non xam nga aussi du dama ne. Moussa la mais du kii. waaw Moussa loolu xam nga. Moussa Fall boobu sax dundatul. te 1935 la jur ay doom ñooy héritiers yi. là il a raison yaa ngi dégg donc pour wax pour vous dire que rek ci mbirum politique méfiez-vous ci coow yi ñuy coow ci nit ñi Moussa Fall mii c'est un homme man ca depuis bi mu nekk ca palais ba lañ ma doon wax yu bari ci moom. Mm. bi mu nekkee gouverneur. D'accord. Donc arrêtons de traiter les gens de tout et de rien sans pour autant les connaître il a fait son travail ñetti weer moo ko dese ah. est-ce que du ñetti weer moo ko dese pour mu retraiter d'accord léegi mais c'est normal le président diggante diggante aux emplois civils et militaires mars 2021 ak février 2024 li xew am na ci responsabilité wala amu ci responsabilité mais loolu mënatuñ ci wax non man danga ma wax nit ki nga ki nga xam ci information yi nga am. ci jub. ci ci ci liggéey ci ci am diine et tout parce que man nit ki la non Aliou di wax naan ay man sans sans non xamul sax sans sur rien nit wax tamit day wax sur rien parce que man bu ko waxee nii man sama xalaat laa wax par rapport ak li ma xam ci nit ki li ñu ma wax ci nit ki li ma gëstu ci nit ki mais bu weesoo loolu lii dëgg dëgg te waroon doon waroon doon dëgg waroon gën a leeral mbir yi. Hmm. mooy mbir mi ñu lijjanti woon ko ca tribunal. waaye problème mooy loolu mënatul am. c'est terminé amnistie nee na mënutul am waaye léegi lan lañ bëgg a joxati ci y a plus rien à dire circuler y a même y a rien à donc donc donc donc c'est bon <laughs> parce que amnistie moo wax loolu. moo moo ne ci béréb béréb sàngam ak ba béréb sang euh, bis sàngam ba bis sàngam mbir mi nii la demee donc léegi xam nga bu ñu ciy wax ne dañuy commentaire nii rek mais amul sens mais en tout cas ci réputation ak li liñ koy jëwee moom Moussa Fall. wax dëgg yàlla nit ku jube murid saadix déedéet déet ah. ah waaw non non man maa xalaat loolu man boo je suis a xam nga dafa si ah. waaw déet waaw waaw déet fonk naa gendarme yi de non déet waaye boo ko bëggee wékk rek si diw lii na murit la rek non non wékku ma ko fo déet damay wax kay damay wax kër sëñ Touba kër Alaaji Maalik yëpp am na ay ñu non déet non non man maa maa ko si yokk parce que loolu dama ko ko xamal man moom xaw ma ko. non si bilaay ak man moom xaw ma ko rek non xoolal non dama non ko ko xamal te ay <laughs> kilifa. arsenal may sama ñaar ba mu wutu. waaw voilà surtout mais Jean Baptiste mi tamit nii mais mais a une très bonne réputation mais yàq nañ ko fi naka su dul noonu moom séeréer noonu la. waaw mbokku wagaay yooyu la. xam nga donc lu nekk yàq nañ ko fi général Diop bi ñu koy yàq mbir yooyu ba tey ñu dellu siwaat dellu siwaat mm. ñooñu ko doon yàq une partie ñoo ñoo ñoo am confiance ci moom ba jox ko ministre des forces armées koo xam ne dañ ko bindoon ne ko dañ koy yóbbu CPI CPI la ñu wax turam nga ci CPI. Mm. entre temps ñu gis ni dañoo jub. ah ben pour man loolu sans loolu kii la aveu la parce que tout simplement munoo munoo yàkk nit ki ah, des choses à ce point.

vous avez le droit de mentir. Hmm. xam kan moo kan si mais la preuve il ment tout le temps. ah déet waay ah déet dañuy wax. <laughs> mais <laughs> mentir mooy lan en fait mënoo ñëw ñëpp ñëpp nga def leen taw déet xam nga mentir du dara dudul ne pas dire la vérité. lu garaaw la. allo li nga wax kay dégg cacher sciemment la vérité. lu garaaw ou cacher sciemment la vérité mais des fois des fois des fois ils n'ont pas dit la vérité. lu garaaw garaaw la. ils ils avaient dit que ni gars bi assassin la bi euh, général Birame Diop ci affaire terme sud bi amul lu ñu ko yàqul. mais man gëmoon naa ni dañuy politique moo tax ñuy wax loolu et que gaa waajooju mënul nekk assassin c'est ba mënoo ñëw ba nekk général di nekk assassin hmm. même bu bavure amoon sax bu ba xoolal man maa la doon laaj ci Moussa Fall maa bëgg ñu génn si gendarmerie. amoon même bu <laughs> ñu defoon bavure au niveau de la gendarmerie ce ne sont pas des assassins même bu bavure amoon au niveau de la police. Hmm. Euh, les de la police ne sont pas des assassins ça veut rien non mbir yi mën nga ko organiser d'une certaine manière ñoom ay nit kese la ñu jàngal nañ leen nag formé nañ leen mais même au delà de leur formation ay nit la ñu ba tey te des fois am nañu ay mat nit ku mun na juum ñaata yoon nga fi gis ay policiers yu ñu ñu gaañ ñaata gis ay policiers yu def ay bavure juum ñu jugé leen loolu dafay am ci àdduna mais nag nga bëgg ne dara xew ci biir police wala ci biir gendarmerie bi nga ne c'est le patron kii kii moom mooy dëmm mooy mooy mooy lépp non il faut arrêter un peu. le lu fa xew ne dinañ la woo. non en tant responsable. Ah, lu fa xew ci d'accord na. lu mënta xew. non d'accord naa. moralement yaa ngi doog oui mais d'accord mais on peut pas le traiter d'assassin il peut on peut pas être on peut être responsable moralement mais pas forcément coupable entre là on, là on parle de responsabilité man ba léegi waxuma ay. non normal normal mais léegi loolu dañ si mën a tout ça wax. bu weesoo waxtaan bi ñuy waxtaanee mën si waxtaan mais en tout cas dit li nga xam ne moom la nit ñi di dund wax leen seen réputation kii nii ngeen di gis nii c'est monsieur boo xam ne wax dëgg yàlla amul ñu ko yàqul fii. très te ñi ko fa yàq ñi ko yàqoon tey jii ñu ngi fi toog. d'accord ah nañ waxante dëgg nag te yàlla tax mais man yàq nit dara taxul ma gëm ko man boo waxee dara si nit ñi nii mu xaw a kii nii damay xool chaque jour maa ngi seet parce que am na ñoo xam ne dañuy accuser à tort wala parce que dañu am yeneen i intention moo tax ñuy wax loolu te loolu dafa bari ci Sénégal dañuy sos surtout ci milieu politique bi te ñi lay sosal ñoo ñëw àndaat ak yow ëllëg nga te ñoom ci suuf ci seen biir entre ñoom dañ naan non politique rek la woon. merci voilà donc il faut qu'ils arrêtent ce monsieur la wax dëgg yàlla il est de très bonne réputation. ñeneen na xaw ma leen même Biram Diop mi même Biram Diop bi dooguma la rek Biram Diop bi sax gëw ma xaw ma ko woon man xaw ko woon merci à la mais bi ñu ko jëlaatee laa xam ne kon ndekete gars yi dañ doon so bi ñuy